محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول مولانا loolu day jom rek jom ak fula fayda daal moo koy def ay jom ak fula fayda ma dee wax te gi ma kenn gisuloo dina am fan yoo xam ne dina ko tëbal di ma noppalu jéem a jàpp fi li kon jom rek waay waay waay kaay kaay kaay kaay yow doon war xoolal li may jàpp bos la di sa boos la waaye yow tamit damaa xalaat te béy bu gadi lan moo ma manqué ci weeru koor bi nekk sa tala la xam nga ni li waruma koo ma ne lu biig si guddi yaa nga doon wax ne fa nga bëgg a jëndi eh, laay ni waaw loolu weeru koor bu passé la dimbali ma rek déet kiwsel yombalal nañ la ko ah gis nga kiwsel fañ indi lu ñoo wax ramadan promotion waaw si biir weeri koor gii ñaari bés bu ay yu njëkk képp ku jënd na sim card di kiwsal ñu yor la benn satala nga jënd benn sim card ñu jox la satala kiwsel weli am sa sim am sa satala kiwsel weli dooma ko wax ñaari yoon nag loolu. Banana flavored drink number name. waaw wax leen ma ci flavor yi ma dégg ah. an orange laa bëgg. man strawberry laa bëgg. man mango laa bëgg. man pineapple coconut laa drink moo ma sawarloo. tiara flavored drink xale yi nañ ko te itam mag yi bëgg nañ ko ñëw na si juróom-benni fosami flavored pineapple pineapple coconut berries strawberry mango. ak itam orange ñi leen ko andil ñii di waa MFH group ak waa King Food Banjo, Tiara flavored drink moo fi man Western Union helps you share even more this Ramadan. Send and receive money and get a gift. You can also go to westernunionramadan.com to play online with family and friends worldwide and will donate up to 240,000 school meals to the United Nations World Food Programme. The more you play, the more we give. With Western Union this Ramadan, generosity is in the air. Western Union, moving money for better. Approved Services Safe and Secure Instant Money Transfer. At Approved Services, we distinguish ourselves from other money transfer companies by going that extra mile for our customers in terms of excellent customer service, speed of delivery, highest exchange rates. at Approved Services Limited, we are passionate about our business, doing the right things for our people. We lead by example in giving back to the communities we serve and improve our world. View us online at www.approveservices.co.uk. into my heart yéen sumay am di jàmm kaay leen ma digal leen ndax li ma mos ba tax xamte ko foog rek ma wax leen ko muy laba mayonnaise ak laba kon beef ak li nga xam ne mooy Victoria mayonnaise ñetti xeet yi ni booy mos di dolliwaat ndax seen cafaay neex na te it xale yi bugg nañ ko mag ñi bugg nañ ko rawatina nag yéen ñi nga xam ne ni da ngeen di def ndéewa yu neex jël leen li nga xam ne mooy laba mayonnaise mi te laba kon beef ne ko ci saraax yéen ñi nga xam ne ni taamu ngeen ko ci seen xeew yi ci dàqati yéen ñi nga xam ne da ngeen di reer def leen reer yu saf def la ba mayonnaise mi te ngeen def la ba kon bi waaye nag Victoria mayonnaise ne man fi de man tamit man suma cafaay suñ coono jeex na ñetti xeet yi ni ñoo yi nga xam ne ni ñoo gën ci suñuy doom gën ci suñuy yaram jaaraama Victoria shop yéen ñi nga xam ne ni yéen nañu indi li nga xam ne moom lañ bëgg a mooy laba mayonnaise ak laba corn beef jaaraama yéen If you have any questions that you want answered during the holy month of Ramadan, all you have to do is to send us a text on the following numbers. AfriCell on 2020 200, QCell 30 30 300, Comium 60 600 or on the Gamcell line on 999 0909. Your questions answered this Ramadan on GRTS.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 sunkaro mbele karolem alla luntaŋo lemu nna luntaŋo lemu mbele luntaŋo lemu anata le kayiro kono ana la kayiro aduŋ na bita ana la wo kayiro jama le kata niŋ ko sunkaro wo lemu karo ti moolu ka miŋ suŋ bira folo to faa labaŋo to a si ketili taŋ saba a si ketili muwaŋ aniŋ kononto gambe je alhamdulillahi rabbil alamin ala ye ma koy supreme islamic council lota mansaya saya sembentuya misilmolu ba koma ina kacace kaje ko ño waliyo meta gambiya jande karola karola min mu sun anin banna mol buka kamben salo ka ke tilfula tilisaba hanin na banko min ben dalajan senegal serun suŋo saloo keta je tili saba adun sufiŋ saayiŋ kaŋ sunu maŋ tara wo to ñinaŋ ñiŋ sunkaroo ŋa naa je aramisaluŋ sabatita moolu ye je senegal imam ratib alama ala ye a simaya a corno aliyu moaska kunuŋ naa be kaca la a ko senegal dulaa fula saate fula be ya karo karoo je aramisaluŋ bari senegal bee maŋ ibe balandi mun ne sab sabu sufim sami kansulti je karo ka jijan ne sandonkol ko kombo karolem lem je kombo faŋoto jaŋ banjul isaafo banjul karolem mo ŋo be seedeya jaŋ ketam be kunkaŋ a ketan be nyala mol moolu maŋ soŋ ñoo la kuma la sufim sami kansul sitaya je ko ñiŋ ñoo waliyo meebaata le misilimoolu duŋ ñanta ke la kaŋ nga kukile muta baŋ wo le mu nga ko ŋa juibe siŋo bula maka siŋo noŋ duniya kono misilime bankolu miŋ ka bata karo ye ko maka a maŋ siya aduŋ niŋ ŋa banku doo faŋ si waaliino woto bari niŋ ko maka niŋ misilimolu te waalii la woto kaatu bee le be sondi maka la ñaatonka ye la diinoo kono comme bébé son dem banjol la capitale yala ñami gambia kon saté do ñi ñaata ñaawo ñaa banjol non capitale ote so makka alquran o jita jeele afemba atona a tonata madina makka la mu madina alquran o mo ñinati diino folota jeele lum min diino be jila makka na ya tare mobe balurin gambia banko ka wolum o